Bienvenue sur Salam Vision. خضر المقلب بلا ابتداء لو الشكر بلا كفر وهو نشيء من ابتداء أسبل شكر أسبل أمور كاتر خير بلا كداء أسبل شكر أسبل أمور كاتر خير بلا كداء allahuma salli ala sayyidina muhammadin Serigne Touba bi muy dem lii la doon ànd ak noonam ba ay gañe te am na lim yoo xam ne moom képp koo xam ne def nga ko di xare ji da ngay am ndam kenn du la gañe te madame la maire ne ni ki dalal lii soxna si macha allah tubaarkàlla kii de sama doom ma ñëw mu jox ma micro bi waaye nag laaw la cat ba ci kanam waxtaan nañ ci dalal madame le maire nuyu nañ la bu baax baax ziar. ñu ngi lay ziar. macha ñu gis la tey nga teew ci biir commune Djiddah Thiaroye Kaw bi nga xam ne yaa ko jiite bu yàgg ba tey waaye lan moo dox sa diggante ak jigéen ñi ay numéro 3 yi nga xam ne ñoom nga seet si tey. asalaamaaleykum waa di leen nuy bu baax tey nag ma ñëw fekk si waa Aynoumane sini euh, si sini yaay maire ay dafay nekk jàmbar si PDS yàgg si lool nekk si liste su euh, commune euh, Djiddah Thiaroye Kaw majoritaire nekk conseillère. ma ñëw mu teg meeting ma ñëw jàppale ko si jigéenu ji Djiddah Thiaroye Kaw li ma boolee ñoom dafa bare ndaxte docteur Cheikh Dieng moo nu boole euh, PDS moo nu boole maître Ablaye Wade moo nu boole euh, développement moonu nu boole jàppale leen te yàlla tax moo ma booleek ñoom liggéey suqali jigéen ñi respecté leen jox leen seen cër loolu moo ma booleeg jigéen ñi. mu doon lu am solo yaay booy nga ni nga ko waxee léegi wax dëgg yàlla ku ne xam ne jigéen moom jigéen ñi ñoo solidarité dafay daw ci seen biir macha allah rabi waaye ñu gis madame la maire boobu ba léegi bàyyiwuloo tàyyiwuloo sonnuloo motivation bi ak ambition bi lan la dëgg dëgg dëgg dëgg. waaw euh, motivation bi mun nañu wax ne ko ñaari mbir la ndaxte 2007 la ñu teg euh, euh, si ni femme action et développement di si dem nag ak. jàmm ak dëggu di si dem di si jàppale jigéen ñi te yàlla tax ñaari mbir moo nu moo di jàppale leen te yàlla tax ñu sëqali ko xam ne jigéen fu mu munti nekk rek moroomu jigéenam bu nu bokkoo nekk benn am unité rek mun nañu tabax réew beneen bi moo di docteur Cheikh Dieng bi nga xamee mooy sama borom kër nekk jàmbaar bëgg PDS bëgg Ablaye wàdd gëm Karim wàdd nekk koo xamante ni dafa gëm Djiddah Thiaroye Kaw docteur cher Dieng docteur en environnement et foresterie nekk statisticien bàyyi gratu colonel eaux et forêt ngir Djiddah Thiaroye Kaw bàyyi lu bare ngir Djiddah caaree Kaw man dama simmi sama yére en tant que femme de docteur Cheikh Dieng di ko jaamu di ko tarbuy di ko jàppale nag si li mu bëgg mooy jàppale askanu Djiddah Thiaroye Kaw jàppale jigéenu Djiddah Thiaroye Kaw yi ñu dem fu sore ak moom ndaxte Euh, politique bu yàgg ba dan naan ku jàng wala ku am yenn lijaasa yi du ko def mais docteur Cheikh Dieng dafa ne loolu kon mooy ñu yàgg si façon politique bi nga xamee moom la nit ñi di bañ ba boo nee imam mu ne duma ma politique boo nee nitu diine mu ne duma ma politique mais docteur Cheikh Dieng mu ni loxoom dafa set am na xam-xam bi am na compétence bi kon dafay ñëw taxaw ci biiri mbokkam muy jëdde caare kaw bi nga xamante ni fii la bokk fii la fekk baax mu ne dina jël xam-xamam jël am-amam ànd ak nit ñi si sellal ak setal ak defar jikko yi yëkkati jëdde caare kaw yéegee ko fu sore nekk doomu jëdde caare kaw war a dem ba ville de Pikine kon kooku tey moom laay woo képp ku nga xamante ni mooy doomu jëdde caare kaw ni leen seen doom moo ngembu bu seen doom ngemboo ni day dem bëre ji biir ville de la euh, biir ville de pikin ñoom waa Djeddah caare Kaw ñoom nañu jiitu nekk ci kanam nekk ci ginnaaw nekk ci wet bi ndaxte loolu mooy tax ñu fal seen doom te lu seen doom am dina leen ko indil dina leen ko delloosil ndax nit kat boo demee ci làmb ji di bëre boo daanee da ngay dem ci say mbok kon nag docteur Cheikh Dieng daa ngemboo Djeddah Thiaroye Kaw war dem ville de Pikine kon ñuy woo ville de Pikine yëpp woo nag itam euh, commune Djiddah Thiaroye Kaw ñu jiitu si combat bi pour jàppale seen doom mu am ndam loolu nag moom mooy sama euh, li nga xamante ni moo ma motiver mooy jàppale sama borom kër te yàlla tax ndaxte man nag duma politique mais dama xam ne ko ki ma àndal muy docteur Cheikh Dieng am na yéene am na xam-xam boo xamante ni mun na ko def si réewum Sénégal bëgg na ko def si fi mu nekk ndax benn man daal la def biir Djiddah Thiaroye Kaw def loo xamante ni maire de la ville bi yore neuf milliards munu ko def ci commune am moom mu yore budget wu deux cent cinquante millions yóbbu ko ba neuf cent soixante six kooku dafa setal kooku dafa sellal kooku dafa jël alalu ji Djiddah Thiaroye Kaw dugalaat ko ci Djiddah Thiaroye Kaw kooku daa jël alalu Djiddah Thiaroye Kaw tabax ci ay salle de tabax ci maison boo xamante ni sage-femme la fa dugal jël jumaa yi def ci ay solaire jël si matière yi def si ay solaire def si ay làmp jël inondation bi nga xamante ni Djeddah Thiaroye Kaw ku ko xamoon xam ne ko inondation moo ko yóbbu Balsar moom mu jël inondation jële ko fi ren ku nekk gis na ni carte Sénégal xaw nañ si génne waa Kër masaa ndax inondation mais Djeddah Thiaroye Kaw danoo taw ba sëwat bale toogaat seen biir kër yi 2014 300 et quelques personnes ñoo nekkoon si salle de classe yi nekk ay inondé nekk ay sinistré docteur Cheikh Dieng ba mu ñëwee dafa ne du ay ceeb wala ay meew lañ leen di fekkee fii ci école yi mooy faj inondation mais il faut avoir le courage politique jël xaalisu commune bi def ko ay tuyaux gas ndox mi gas tuyaux yi dugal ko ci ay voies secondaires pour ndox yooyu te nekk ci koñ yi génn dem géej dem ci bassin loolu moo fi jëlee inondation bi jëdda caaray kaw tey bu nu toogee ba di sant yàlla ci inondation yi docteur Cheikh Dieng la docteur Cheikh Dieng moom moo ñëw fekk jëdda caaray kaw enseignement bi sooxee loolu docteur Cheikh Dieng jël enseignement wu jëdda caaray kaw tey ci département wu Pikine moo fi jël pay xale yi euh, mu tabaxal leen ay salle classe jël enseignants yi di leen jàppale si nan na ni demee ba am ay matériel pour seen composition yi mu jaar si yoon pour seen examen blanc yi mu jaar si yoon kooku mooy docteur Cheikh Dieng kooku nag moom la ñuy jàppale loolu moo nu motiver mais ñun man chef d'entreprise la kon nag bu ma taxawee tey simmeeku di jàppale docteur Cheikh Dieng ba ma ko àndeek moom ba 2014 ba mu jëlee mairie ji de Thiaroye Kaw dama kaa gunge ba ci buntu mairie bi ma dëppaat dellu si sama liggéey dellu si sama njaboot jàppale leen moom ma bàyyi ko mu liggéeyal Djeddah Thiaroye Kaw boobu laa fa gëj dugguma mairie Djeddah Thiaroye Kaw ba tey te bu jëlaatee mairie Djeddah Thiaroye Kaw jël maire de la ville Pikine itam dama koy gunge ba mu yegg ma dëppaat ndax moom wóolu nan ko am na compétence bu mu liggéeyee mairie te du jabaram mooy toog ci wetam du sœur mooy nekk si wetam du frère mooy nekk si wetam ndax li mu liggéey ba yegg si fii dafa nekk loo xamante ni xam-xam sellal ak dëggu ak yërmande la ko yere docteur cher Dieng nag du sàmba àllaar ndax li muy def si waajuram yi la ko njëkkee si frère am ak sœur yi la ko njëkkee ak si man mi soxnaam kon nag kooku du sàmba àllaar li mu balaa muy politique tabax na këram man mi may na ma sept fois voiture yaayam yóbbu na ko màkk teral na ay magam teral na ay rakkam kooku du sàmb àllaar la muy joxe fourniture nii ba ma sëyee ba léegi xale bu judd ci kër ga ba am na nañu ay maîtrise am na nañu ay master moom mooy joxe fourniture kon kon kooku la mu am dafa ko njëkkee seen kër balaa mu koy yóbbu ci mbedd ma kon nag ñu ngi koy sant di ko ñaanal yàlla le 23 au soir mu gagné avec une large victoire boo xamante ne kenn du ko werante parce que li nekk tey ci xolu Djiddah Thiaroye Kaw bu fekkente ne nit ñi jaar nañu yoon vote bi jaar na yoon kon kenn du laam-laamee victoire du docteur Cheikh Dieng parce que imam yaa ngi ñaan chef de quartier yaa ngi ñaan boroom xam-xam yaa ngi ñaan yaay yaa ngi ñaan daara yaa ngi ñaan docteur Cheikh Dieng ba Covid bi ñëwee tailleur yi liggéeyu mu jël xaalisu commune bi woo tailleuru Djiddah Thiaroye Kaw yëpp ni leen nanu jël tailleur yi yóbbu leen si centre Mamadou baas ñuy daan seen doole ñu leen di fay journalier ñu defar 10 000 masques tasaare ko si kër yëpp may leen ko kooku mooy docteur Cheikh Dieng am yërmande si doomu aadama am yërmande si jigéen docteur Cheikh Dieng bu muy tabax maison de la femme Djiddah Thiaroye Kaw nekkul maire maison de la femme bi nekk ñetti mbaax ba mu koy tabax nekkul maire docteur Cheikh Dieng bu muy wut 20 bourses étudiants c'est en 2009. boobu nekkul maire c'est en 2014 la nekk maire mu jàppale ko ay étudiants ba ñooñu tey ñu nekk ay cadre dans le Sénégal ñooñu tey ñoo porté politique gu docteur Cheikh Dieng kon kooku tey moom la ñuy ñaan mu dem jëli ville de la euh, euh, ville de Pikine jël commune Djiddah Thiaroye Kaw ndaxte am na yërmandeem am na compétence am jërëjëf. Euh, sonal nañ la bu baax a baax waaye ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm bu baax a baax di ñaani tamit yal na defal leen ndam li nga xam ne moom ngeen ci bëgg incha allah rabbi ko madame la maire waxee ba xam naa déggu ko mais da ngeen di tàccu tubaab fakalla macha allah ki nga xam ne dafa bëgg a suqali jigéen ki nga xam ne liggéey la wax ki nga xam ne travail li Ablaye Wade waxoon toujours travailler. waaye encore travail li gën a papa ñu gis la nga ñëw ci biir jotaay boo xamante ni jotaay la boo xam ne mën nañ ni jotaayu xew-xew la jotaayu campagne la. waaye mboolem ñi fi daje ñëpp doon ay jigéen yow nga doon suñu waajur doon suñu kilifa ñëw teew ci seen biir. Mhm. dooleel leen taxawu leen lan moo waral loolu ak sa diggante ak monsieur le maire madame la maire ak sa diggante ak ki xam ne mooy ay dafa maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu Aïda sama goro ak Jobbe Diop man nag Ablaye Wade rek la am ci sama kilifa ci sama politique moom laa mos a àndal bi ma dalee woote ba léegi Ablaye Wade laa gëm moo nekk ci sama xol Cheikh Dieng nag nekk fii ci quartier bi liggéey ci Djeddah Thiaroye Kaw liggéey bu rafet bu kenn mënul naatable ndax ñun Ablaye bi biñ ko ñàkkee ñëpp gis nañ ko seet nañ ko sa seex jàmbaar la ndax man Baye mbay ñaay mi nga xam ne maa toppoon ci moom guddi gi mu gaañoo guddi googu seex dafa jóge Europe daadi di jubal fii direct ak soxnaam génn ñaar fukki junni xaalis bari teg sama loxo ñu def dëj bi yëpp te moom la ma sa àndal ci politique fi moom du ko xëccoo kenn ndax gis nañ lim fi liggéey te ñun Ablaye du la ñu gëm ndax bi Abdoulaye di jógee ci réew mi ñëpp yëg nañu boobaak léegi gis na réew mi nu mu demee kon seex bu mu am dara lu muy xalaat ndax képp ku baax te ne ci quartier bi yaa ngi yor sa kurus di ko ñaanal man de maa ngi koy ñaanal yàlla man Omar Aw seex lu mu man ren yàlla na man déwén lu ko ndax mooy sunu njariñ Abdoulaye Wade ñun la ñu xool ci politique te seex la xool kon ni ñu koy ñaanal sutura ak xéewal ak ndimbal yàlla nag may joxe waaye ñu ngi ñaan yàlla jox ko carte bi te ay dafay mii ko fi nekkal ak adjoint maire Jobbe mii yàqaluñ ko dara dañ ko fee liggéeyal kon nag Cheikh man kontaan naa si moom maa ngi koy san maa ngi koy gërëm maa ngi koy ñaanal yàlla te jàkk damay jiite heure bu ma sëlmalee damay jël sama source di ko ñaanal di ñaanalit Abdoulaye Wade fa mu ne yàlla defal ko fa sutura ak jàmm ak xéewal dool la dekk fanam ndax taalibe sëñ Tuubaa la seexit taalibe sëñ Tuubaa la Karim it taalibe sëñ Tuubaa la leer na nañ ndax Karim baayam yor na réew ba jóge fi kenn musul dégg Karim ñu tudde ko sabab ngeen mus ko dégg ñu tuddee ko benn ñàkk fayda du làmm du dara liggéey rek te yàlla tax réew mi nag kenn mënu koo xañ bu soobee yàlla ak yonent bi Karim Wade mooy mi mu neex bu naqari ndax defar bu sëñ Tuubaa samp la wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu Yeah. juróom-ñett waaye boo gisee. aara ngeen dugal ni ci oto. maa ngi ay daa ngi aara te Cheikh Ndié da koo bokk ak ay coalition bari. te ñun waa PDS xam nga ni ñu mu am difficulté doon mu ne aana ne waaw. ay na waaw ku ñuy tànn ma ne aana man bu ma seede kenn ndax ñett baaxul góor du te maa ngi ci sama ñeenteeli conseil. yàlla yàgg te sax man day lenn rek laay xalaat conseiller bu a bàyyi bu ay dafay moom duma ko mën a bàyyi day jàll waaw comme que affaire yi bokkaatele te daf koo bokk yeneen parti du PDS kese man day damay de damay génn ay dafay na du man na ma doon liggéeyale PDS su ma yàlla mayee wér ak fekke ak tal tey jii laa koy gën a def ay daa ngi nii ñun ñaar bañ nañ ko bu bu dara xewee guddi téléphone la ñuy fanaan waaw yéen sax bu koy jënd danaan ma kuñ jënd rek ñu jënd ko wax dëgg yàlla sama rakk la sama xarit la sama lépp la xeebu ma ci dara parce que itam gor rek moo mën a sagal am ndaw leen defal ko dara toppalewu ma ko dara waaye fu ñu dem fu ne cëral na ma sagal na ma man nag CNG defe naa dañoo bokk sugeer ak ndaar bokk jaay jàmm ñaan ak gëm man su ma àndut ak seex duma góor de man su ma àndut ak seex duma góor te seex nag dafa yàgg digg daal yi waaw may sant yàlla nag di julli ci yonente bi di gërëm Pam Mbaye ndax Pape Mbaye Ndiaye ba muy sant suñu secteur dégg naa booba Bousso duggagul sa école dangay Ndiaye gi ci kër gi di ma dégg aawa ñu nii toog suñu secteur yëpp moo ko sam ba PDS di PDS permanence ba nekk eh, ca monument ba dangay Ndiaye gi di ma dégg ca la daan yóbbu bu ñu dikkee kenn ku nekk dana jël taxi kenn ku ne mu wàcce na sa buntu kër saa foog sa borom kër ne leen ah maa leen yóbbu woon kër ca PDS lii Bambey Ndiaye defal leen ko may sant yàlla di julli ci yonent bi di ko ñaanal moo ku fa fekk ak ku ko fa fekk yàlla ko yàlla xare àjjana Baye Mor Sall moom dañ koy ñaanal mu yàgg parce que Baye Mor Sall soo nañu ci seex seetuma seexu woowuma seex defuma dara fu ma di tey man jarbaan mbaa yaa ngi jàpp jabaram yi itam baa ak gorom yi ñoom itam loo leen te senkee soxla yu jóg kon nag daal ñii leen di coow man tey damaa daje ñoo xamante ni dañoo mitin parce que sëñ Touba dañoo mitin boo duggee daa gedd ba mujj daaw nañ jaar jigéen muy kër Awa bi ay xale kese fa nekk daa jóg dem waaw ma ne leen yéen te ngeen a teel a noppalu dañ teel a noppalu recordius bi lañ fa daan def bu ñu ko yàlla fekkee loolu te ñu tal ko suñuy càmmiñ Bamba ak ñeneen ak ñeneen ñoom aw taxaw di lañ fa def lañ fa daan def bu soobee yàlla te ñu yàlla kàttanale dañ ko fa def yow nag aana man mënu ma laa fay ndax man ay numaan kese laa am te ay numaan samp nga fi ñetti léget waaw samp nga fi ñetti léget te mënoon nga nekk at man samp naa fa ñaari léget wala samp naa fa benn duma fa delluwaat waaye nag xubaay moom sàll li ay dafay wax ñu lay xaar nan la may ba ñu ne vive Seck moo tax ma ne ñii on verra avec ah! merci lii daali yàgg naa dimbalee social la la yàgg naa yërëm jigéen te ku yërëm jigéen yàlla da lay jàpp waaye tubarfakala macha allah lii grand Bamba wax wax na dëgg yàgg naa dégg daali kon ca kaw ca kanam kon carte yi carte yi carte yi lii mooy lu ñoom musique bi neex na sabar yi neex na mais carte yi su ma duggee dem na baax maa ngi sama gannaaw bu sama kër amul jàmm baax maa ngi sama gannaaw yow jën saala kenn dugg yow ñaan ci jëmm yàlla ak gërëm yàlla la xam ne bi sa kër lay yàlla yàlla def mii bu ñaay mii nag da nga ànd ak yaayam ba pare pare doon ndeyam politique bii sa yaay ko doon Njaay bi sunu baram booba lu tuuti nga tey nga toog ba màgg tubaab fakal bakal yal na la yàlla la forget yal na la jig fa sa yaay jaaroon nga jaar yal na ko su sa ndey fa dama lay baal wii mi ak yàlla yal na la ko yàlla bax yal na la ko yàlla yal na nga mucc ci lan mucc ci wax mucc ci lépp dara ngay ko xam ne ñaanal sama maam Ndiaga seen taw ji euh, sama maam sama nijaay per aaw di ñaanal di ñaanal sama ñu jàppale ci côté bu may nuyu aussi tamit jabaram ndax ci togg ñu tudd ay tur loolu mënut a ndax olof Ndiaye ne ne bu lëkk lekkee olom naka gërëmee cooy bu loolu weesoo may sant suñu waa bu baax a baax di sant sama ngumpaay yi ne ci kër gi ñoom ñi xandax nam ñoom ñoo tax may dem di ànd ak docteur Cheikh Dieng di pëndi togguma balewuma raxasuma poleerewuma saa yu moo xëyee sol sama tubéy sol sama buri takk sama kase takk samay daal bu mu dëgër ànd ak docteur Cheikh Dieng ci terrain yi ba xaaju ko di laay dugg sama biir kër kon loolu su ma ko ñoom ñoo tax may sant sama maam Ayda Njaay di ko ñaanal gudd fan ak wér muy maam ju baax di maam di bëgg ay sëtam di maam di bëgg ay njabootam ndax yaakaar naa ne moom moo tax tey jooyu ma sama yaay rajo moom moo ma jàppale ñoom ñoo ma uubal sama njaboot tey jii ñoom ñoo tax tey ma mën a tey di politique di dem fule di egg fule ñoom ñoo ma ko may kon nag ñoom maa leen sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla di wax waa ay numaan man lu ma leen defal defal lu ma leen dara yéen yéen a bëgg yéen yéen a bëgg ba ma yëg ko heure bu ma génnee mairie yi may ñaanal xel nag damay fatt may nuyu sama yaay Ami Collé bu baax a baax sama wala yaay nga xam ne ànd bi dafa ne moog sama yaay saa yu ko jegee mu may jox ay conseils yu baax a kon loolu mënut a ñàkk tey ma wax ko la maire maa ngi sant di la gërëm di la sant di la ñaanal yàlla yàgg sa borom kër. aussi ñoo ngi lay dalal fii ci ay numéro am nañu kontaan ne trop trop trop ndax lii yàgg nañ ko bëgg a def ci gox bi te mësuñu koo am xëy na tey la suñu yàlla di ko doog a doog a ci yow kon ñoo ngi lay sant di la gërëm di ñaanal sa borom sol di ñaan lii ñu suñu muy lancement local yi ñu jëm muy 2000 le 23 juin ku ne xam ne dimanche la élection man yàlla damaa dimbali man loo may wax waxoo ma tuddoo Cheikh Ndiaye mel ne waxoo dara. man dama bëgg Cheikh Ndiaye te bëggal tungu Cheikh soo ma bëggee laal rek tuddal Cheikh Ndiaye ndax damaa defal lu mel loo xam ne ma toog fii di wax sax day métti sama biir xol Cheikh Ndiaye moo ma fekk sama biir néeg fekk ma toog. mu gis ma dama ah sama jigéen ah, ah, dama fa si suma fenn munoo man da du ma liggéey waaye suñu àndee ñu liggéey ah yaay gisal sa bopp te yaakaar naa depuis 2014 ma ànd moom ba léegi réccu ma dara maa ngi ciy gis sama bopp à 100 pour cent tey lépp lu ma mën tey baa ma taxaw tey ci géew di wax yàlla seex jeer a tax su ma jógee foofu nag ci seen biir may wax sama yaay yi sama nijaay yi sama rakk yi sama mag yi sama rakk yaay yi toog yéen ñëpp ak sama rakk buur di nuyu waa koñ bi encore une fois di wax képp ku ci jëli woon sa tànk dama ngeen jëli seen tànk tànk yaa ngi centre Mamadou Ba Jacques euh, Sirac bu ngeen demee Touba Seck mi ngi fa. am na ñoo xam ne seen récépissé maa ko yoroon waaye yaakaar naa ñun ñëpp jël nañ seen carte d'identité ma bëgg nag le 23 yéen ñëpp ngeen jub sept heures pile ngeen léegi ku nekk ñëwal ci école ndekki yaay fa ko tuwaar fa kàlla macha allah ngeen woote la coalition Wallu woote docteur Cheikh Dieng woote ku ci bindu woote ku ci commune quinze jours ñu tëj suñu tëjee ñu jox leen ay fermeture benn xale ñu jënd dara yaakaar naa loolu ñun jigéen jaare ko mosuñu ko am ci àdduna lamp yi ngeen di gis muy tàkk guddi ak bëccëg yàlla seex jee la kon nag su ngeen di jàppale di di jàppale mu ngi dimbali seen i doom parce que doom yi ëllëg ñoo leen di kon nag dama bëgg yéen ñëpp ngeen jàppoore dëkkoon certain mu gagné ville bi gagné commune bi à douze minutes pile une heure ñu joxe résultat yi tàggale ko gare ñu def seen yoon sonal nañu leneen lañu wasalaam إن كنت فاتي ولسالئين من الخيرات يا الله بسم الله يا المولى بلا مناي ولن تعلم ربي خضر المقلب بالاقتداء لو الشكر بلا كفر وهو نشيء من الخداع أسب الستور أسب الأمور كاتر خير بلا كداء أسب الستور أسب الأمور كايسر خير بلا كداء allahuma salli ala sayyidina muhammadin Serigne Touba bi muy dem géej lii la doon ànd ak noonam ba ay gañe leen te it am na lim yoo xam ne moom képp koo xam ne def nga ko di xare ji da ngay am ndam kenn du la gañe te madame la maire buñ paree daañu ci wax incha allah boole nan laa Bamba Dieng booy voté da ngay voté Cheikh Dieng moo yor bulletin bu jaune ana bulletin bu jaune gis ngeen leen ko moo yor bii waaw parce que léeg ngeen gis koñ bi lëndëm saa leen gisee koñ bi lëndëm moom lay woo mu woo keneen mu ñëw mu mu defar lam waaw xale yoo xam ne jànguñu moom laay woo wax ko mu jël yóbbu leen seen école man li ci mujj am sama doom boo xam ne bii fa la amee ca école Cheikh Dieng ba mu nekk ca daral ga muy Khady Dieng ana Khady Dieng am na jëkkëram mi ngi liggéey yoroon oto grâce à Cheikh Dieng dañu wax dëgg ak ñeneen ak ñeneen ba pare nag li tax ma gën ko jàpp nag xool leen fii ay lumaan am nañ eh, eh, benn officier état civil mooy El Hadj Coy El Hadj Coy tey bu Cheikh Dieng daaloo ñu dàq ko loolu rek yéen waa ay lumaan war naa tax ngeen wotal Cheikh Dieng Cheikh Dieng bu daanoo tey alaaj cooy bu alaaj cooy bii gars yi jëlu ci benn handicap Cheikh Dieng dong moo waaw encore nga xool Jobe Diop mu ngi nii sans wet tey dama la nekk waaw nga xool Ayda Faye Marème Faye Ayda mu ngi nii waaw conseillère ci la suma caat bi Mimi waaw gis nga ko. ak ñeneen ak ñeneen. Ah, ah. bu ngeen xoolee Djidah Thiaroye Kaw li ñuy investir leen. Ah. bari na. kon Aïnoumane sant yàlla. Aïnoumane yéen yéen ñëpp kan moo fi wër di taal lam Bamba Dieng. Bamba Dieng ku ko may doole. Cheikh Dieng bu doon la nekk ko woo kon nag bu may voté man kooku laay jàppale njàng mi moo ma ci jàppale ah liggéeyu xale yi moo ci jàppale maye ay bourse joxe naa booy ay carte université ñuy dem ak a dikk ku wax Cheikh Ndiaye def fi dara da ngaa fekk wut da ngaa fekk wut sax dina caaral kaw bu njëkk dina caaral kaw bu njëkk ba ndox ma ñooñu ñooñu fi nekk loo mën a wax tey naan la Cheikh Ndiaye parce que ñoom fii naan fii pare la fi yàlla lu ñuy dolli ñaan Cheikh na ko yàlla musal musal musal ko te musal ko te musal musal ko yàlla bi mën a fol yàlla ko yàlla fol maintenant parce que Cheikh nag ñaari vote lay def dafay voté commune Djidah Thiaroye Kaw ba pare de laaj ville de Pikine ku dem ci élection ba ci centre ba di voté da ngay jël benn kayit dugal ñëw si enveloppe bi benn muy commune nga demaat jëlaat beneen kayit ñëw dugal ci ville bi war ngeen koo xam tey seen i carte d'identité yéen ñëpp bu ngeen def loolu nag fii nag man bu ma bu ma keneen gañee Cheikh Ndiaye parti bi booba ngeen ba ma ne ak sa lampe lakk nañ seet kayit waaw foofu laa yem ay eh, macha allah tubaarkàlla ba nu yëg see dafa yàgg te tey sabar yi neex na déglu bi neex na mais ki am solo mooy ajaratu àndakul bali bii nga xam ne mooy soxna su sale meer te dafa am loo xam ne bu la taxee jóg da koy leeral ñi la tax a jóg waaye borom sabar yéen li ngeen tëgg yéen a nekkal bis mais ñu ngi ñaan rek ngir yàlla te xam ne ana doom yëpp ñëpp la yéen may ko rek mu leeral balaa nit ñee dem di ñibbi loolu rek auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim may nuyu ñëpp rek di ziar ñëpp tàmbali si nuyoo bi nag di ñaan uh, imam ah imam ñaanoon nga ba pare mais dama bëgg ñu ñaanal Baye Mbaye Ndiaye defal ko ay lixlaas ak yaayu Mimi maire euh, Wagle ñu ñaanal leen ak Assou njaay ñu ñaanal leen ñaan yàlla suñu borom xare leen àjjana kër gi nag te maire Nogay Ndiaye nekk miin naa ko kër gi tëbu so nekk miin naa ko ndax ba daawa naa fi fekk bay Mbay Ndiaye mu nekk euh, mu ne ma maay sa baay dama lay jàngal politique may ñëw nag ay 10 heures ak 11 heures di taataan ay xam-xamam kon nag nañ leen ko ñaanal doogat continuer kon jërëjëf Anna xam nga lii mooy kóllëre ndax su la neexoon rek nga jël sa kàddu te dañ lay xaar te doo fàttaliku te fàttaliku ay néew ñaan yiñ leen di ñaanal dañ koy soxla torop parce que mi ngi mel ni sa mbokk nekk bitim réew rek di jël xaalis di la ko westen ndax ñoom fa ñu nekk soxla nañ ko waaye ku am xalaat nag ne ñi ma àndaloon démb ak bërki démb ci ñu may jàngal politique du leen fàtte te jëddu nañu àddina ngay xalaat ne nañ leen di ñaanal bala ñuy def dara loolu Coulibaly loolu ci kóllëre la bokk waaye kuy baax yàlla moo la gën a baax ndax ku leen ñaanal ñaan yooyu yàlla dala koy delloo yow mi ko def kon nag sunu baay may Njaay ak soxna Rakki Wage ak Asu Njaay ak mbooleem néew ba Cheikh Njaay mbooleem néew bu fi jóge ak Abdoulaye Mbay suma rakk mi fi jóge barki démb ak sunu yaay Kumba Saw ak soxna Mari Sarr mi nga xam ne moom PDS dafa deewoon ci xolam ndax man daf ma daan fekk fii ma moom ak Wara Sarr muy wax ni mu tollu woon moom ci parti démocratique sénégalais madame la maire na tey kenn mënu koo fay ndax man bëggoon naa jëlaat sax tuuti kàddu waaye dafa guddi te maire war a wax ndax dafa am fu mu war a dem guddi na waaye xalaat bi mu am ñëpp dañ ko cee war a jàppale te war a jàngat ci ne kii ku baax ku ñu yar la ndax gis nga lii ma la doon wax lii rek moo fi ne Cheikh Cheikh Cheikh Dieng docteur kañ la jël mairie bi du 74 ga du kii mais Ablaye Wade 74 la la la formé bi. 14 14 14 14 da ko jig te 2024 Karim Wade day jël réew mi incha allah ci kattanu yàlla lay la koy wax 2024 incha allah Karim Wade dina jël réew mi incha allah waaw te it nag li ñu ñëpp nag kon nañu fas ci ñaan gi nañu def kenn ku ne astaghfirullah ñetti yoon ñu jàng. fukki lixlaas ak benn benn bu nag mu ànd ak bisimilah rahmaani rahim ñu yéene ko sunu néew yi dem ak mbooleem néew jullit yéene waale ci sunu leader bi Cheikh Dieng yàlla jox ko lu kawe waaye billaay Cheikh Dieng yéene nañ sax ñi ngi ñaan yàlla yàlla def ko njiitu réew ëllëg tax mën na ko am yàlla nag lépp mën na ko ndax mi ngi ci yoon kon nag ñun ñëpp nañ def lii yéene ci nag. soxna aana mii ak njabootam yàlla defal ko sutura defal ko xéewal musal ko ci cat ndax sallallahu alayhi mu ne cat kenn amul garabam làmmeñam cat làmmeñ bu ñuul kenn amul garabam kon ñu ngi koy ñaanal cat moo tax sallallahu alayhi wasallam doon néewoo Aïcha wallahu yaxsibuka mina naas ma jox leen ko yéen ñëpp ngeen nekk nit bu yeewoo laalam bala moo waaj na def juróom-ñaari yoon wallahu yaxsibuka mina naas mu raay ko ci kanamam kon nag ñu tàmbali astafirlaa ñetti yoon commencé fukki lixlaas ak benn benn bu ne ànd ak bisimilah rahmaani rahim. اللهم صل على سيدنا محمد للفاتح لما خلق والخاتم لما سبق ناظر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم ولا حلي حق قدره ومقدار العظيم إن الله والملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين walhamdulilah rabbil alamin barkat alquran barkat xasaat Cheikh Ahmad Bamba sunu baay Mbay Njaay ak néew yi yàlla nañu san borom yaram te jéggal leen jéggal mboolem néewu jullit yàlla nañu san borom defal le 23 jox ñu ndam bi jaay Seydina Muhammad rabbana atina fid dunya ok jërëjëf jërëjëf sant nañu bu baax yal na yàlla nangu ñaan yëpp di tàmbalee foofu rek di nuyu waa kër baay Mbay Njaay bu baax a baax a baax di nuyu suñu yaay Nogay Njaay Bousso sa frère yeeg ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen cër bu baax a baax di dellu nuyu imam aw di ko joxaat cëram bu baax a baax mais nag di nuyu aussi sëñ Bamba Dieng Saala coroma jigéen Saala bi ngay woy nde kon joor Dieng waaw Saala Dieng Saala waay abal ma waay Saala bi ngay sala ɓigue gone yugo faal yasin korjojane korjojane korjojane korjojane sala ɓigue gone yugo faal yasin korjojane machallah machallah waaw euh, loo doon lu ne wala loo nekk lu ne dang si sap bambara laa nang du ma géwal mais nag Cheikh Dieng def na ma géwalam ba nga xamante ni képp ku sant jeng dama koy tagge ziar ko jox ko cëram bu mu baax a baax ndax euh, macha allah dañuy wax ni ka ngembe neex a sëye eh, eh. waaw waaw waa kay sëñ Bamba sa kàddu yi rafet na macha allah di nuyu nag ay nu maan yëpp di jël nuyoo bi di ko teg si loxow ay Aida Faye madame la maire ndax madame la maire euh, yaa ngi si liste bi nekk troisième position nekk si majoritaire ñu jox la cër bu baax a baax a baax a baax loolu lu am solo la mais kenn du jobbe job jàmbaar la nit bu bu dul joxe cër kenn du ko may cër te jobbe dafa joxe cër loolu nag mu nekk lu ma neex ci yow loolu mooy doyle loolu mooy gore di nuyu nag waa kër Baye Mor Sall waa kër Baye Mor Sall damay jox Baye Mor njëgu guroom nga joxal ma ko nga xam ne ko dinañu fa dox yegg si foofu di nuyu officier d'état civil El Coy di nuyu waa këram yëpp nag wante nag di tàllal loxo ak di woo Latir nduur di ko wax ne ko fii ñu nekk Latir nduur ñu ngi koy woo di ko tàllal loxo di ko wax fii ñu nekk fii mooy PDS Baye Mbaye Ndiaye fu mu samp fii fii mooy PDS fu ndox doon boo demee dinga fa fekk ay tepp-tepp te képp ku nekk PDS tey sa yaram war naa daw Ablaye Wade Bamba wax na ko léegi Sénégal yëpp ñoo ko war a delloo njukkal ci élection locale yi ñu jëm ndax Ablaye Wade nag mérité na ko tey bu demee ba nga xamante ni mag la def lépp ci réewum Sénégal ñemeloo nit ñi construction ñemeloo leen route ñemeloo leen infrastructure ñemeloo nit ñi milliards kooku Sénégal ñu wàccee ko en 2012 parce que boobu man damay wax docteur Chrétien souvent ni que 2012 maturité politique gu Sénégal desoon na ndax dañ leen jaxase woon ak seen baay ku xeex ci opposition 74 ba 2000 nga doog a jël réew dugg kaso génn kaso dugalaat la kaso man ba ma nekkee université année bi nga xamante ni maître Sey dañ koo faat ñëw bëgg ko taxal Ablaye Wade ñun ñoo doon étudiant étudiant ak étudiante ñoom fada ñun ñoo àndoon yéeg si ni kaw pavillon di sànnanteek policiers yi xeer kon Ablaye Wade ñun xam nan ko ay numaan ñu ngi nuyu Mimi ndax Mimi nag dafay kenn ci Cheikh Dieng dafay jaay faal Cheikh Dieng day jàmbaaru Cheikh Dieng Mimi bu marche amee di nga xam kan mooy Mimi jërëjëf Mimi di nuyu nag ñëpp wu ay numaan sunu yaay yi nga xamante ni ñoo jóge kër baay moo salle ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen wax ni leen ñu ngi leen di jox rendez-vous après la victoire de docteur Cheikh Dieng le 23 janvier incha allah mu jël mairie commune Djidda Thiaroye Kaw ndax daka soxla ndax bu jëlulee commune Djidda Thiaroye Kaw du mun a dem ville ndax élection yi raw gàddu la da ngay def ay addition plus la plus la plus la ñu ni maire yooyu mu fa am ni Senghane moo gagné euh, Thiaroye ñu jël voix yooyu ni Obama moo gagné mbaaw ñu jël voix yooyu toppee noon noonu ni Nogay Seck moo jël fii ni keneen moo jël fee dem ba yegg ni maam jaara faam moo jël fii euh, euh, ginnaaw raay ni Njaga Njaa moo jël feneen kon ñooñu tey la jël seen ay kaddu seeni i boole ko ni Cheikh Dieng mooy maire de la ville kon nit ñi nañu xam ni ko wóore wure bi dem na këng loolu nag bu ma ko waxee mooy deux jours moo ci des soit ñu folli Cheikh wala ñu fal ko kon yan nan ko fal ci jàmm ak salaam xam lu tax ma tudd folli ak fal ndax nit ñi ñoo ko mën a fal carte moo koy fal bulletin bu jaune bu am mboq bi ci digg bi moo koy fal ñaari yoon la ñuy voté dugg ci mbañ gàcc bi benn yoon duggaat ci mbañ gàcc bi ñaari yoon enveloppe bi benn bulletin moo ciy nekk nga tëj ko te doo ko kole duggal ko ci mbañ gàccewu wu commune demaat jëlaat ay feuille jël bulletin bu jaune bi dugalaat ko ci enveloppe dem votel département bi muy ville ñaar yëpp nga def ci jaune bi loolu mooy votel docteur Cheikh Dieng nga doog a soos sa loxo ci encre bi balaa ngay soos sa loxo ci encre bi na nga voté ñaari yoon doog a taxaw ka jëliwul woon kàttam na ko dem jëli waa dijee ana micro bi waaw kay balaa ngay dem di soos sa loxo ci encre bi na nga voté ñaari yoon ku jëliwul woon carte d'identité am na ko dem jëli loolu moo